giñ waaw giñ rek fab loxo dóor ci loxo bokk ga daal di sotti faatoom ñoo ñu jox leen leen atnasibam seen cër ci miraas waaye mu gën a man soo ina laa niki bur yàlla kaana nekk na sayidan di seede allah kulli seen ci lépp la man sooxun wa uli laraami baalumu aw baal baalumu aw la baalin moo ko man sooxal ulu laraami mujj man soox ci miraas am na ñu koy doxal ba léegi ci ngir yi waaye maa maalik moom nanguwul ko jóg ruxum don mën na najaay juy don wala jarbaat buy don maalik nanguwu ko arijaalu góor ña xawaamoona wooye darajawu lañu ala nisaay ca kaw jigéen ña lu tax bi maa ci la nga xam ne fàttala gënal na ko laa bur yàlla baadoom lenn allah baalin ci lenn ca góor ña la wa bi maa anfaqoo ak la ñuy joxe ab dund di joxe dépasse di fay ndox ak fay kuura di wut càngaay di wut dëkkuwaay loolu moo tax góor yi ëpp daraja jigéen ñi wa bi maa anfaqoo min amwaalihim ci seeni alal fa saali aatu jigéen ñu baax ña nag xaanitaatun wooy topp lañu seeni jëkkër jigéen ju baax day topp jëkkëram aafisaatun wooye wattu lañu seen bopp lil xay bi ñeel bu seen jëkkër tukkee lil xay bi wala ñoom ñu tukki bu seen jëkkër tukkee dañuy garde seen bopp buñ tukkee it dañuy garde seen bopp li furujee na ñeel seeni pay mel na seeni jëkkër a ngi teew binaa ci la nga xam ne afisa wattu na ko laaw bur yàlla xaysu awsa alayhina aswaaj mu dénk leen nag jëkkër ya wala ci jigéen ñi nga xam ne nag taxaafoona da ngeen a ragal yéen góor ñi yéen jëkkër ñi nusoo sow na seenuk mer nusoo sow na seen jekki-jekki na duus seenuk foñ nangootu ñoo waxe yéen nangootu ñoo jaar ci ndigal nangootu ñoo fëgg lal bi yooyu yëpp nangootuñ ci dara fa isoohu na waar leen leen waar leen leen waar waar waar waar waar waar ku ne mën ngaa waar sa jabar waaw ñàkk xam-xam yeggul ci bañ a mën a waar sa jabar wax juróoxu na bu ngeen leen waaree ñu lànk fil maddaaj yi ca tër ba ah waar ngeen leen ñu lànk wax juróoxu na ngeen gàddaay leen bañ a duggati ci néeg ba wacc kookum néegam bu ñeree nga ne ko doy na bu toggee nga ne ko doy na su waxee doo ko wuyu dem sow yoon loolu lépp nga def ko jëriñu ci dara mu ni waddari boobu na duma leen leen nag waaye bu ma nekk di da leen jabaram ba mu ko defee jekk-jekki mera ko nangoo tuddoo fëgg lal be nangoo tuddoo ba yàgg mu dem tukki tàggoo ma ah ñibbisi nee na maa ko gën a yëg xam naa ne ñëw na mi ngi ci néeg bi ma jënd sama saaku ngooñ fekk néeg bi perum dog la ma daal di koy sotti rek sotti ko ci kawam mu ne waaw yow da nga may sotti ngooñ ma ne ah yow kañ la ñëw waaw moom daal ci la doxee rek juddoo boobu na na ngeen leen duma bu mu saf nag bu dee pesit na doon ndànk sa loxo bu dee ab yarit na doon yar bu ndaw yàlla nee nag bu leen dagg aw der bu leen xaaj nag waaw duma leen nag waaye bu leen xaaj nag est-ce que ah waaw bu leen def noonu nag ina laa ni ki bur yàlla kaana nekk na alin daaji kawe kabiran daaji mag yéen xiistu ndéem ragal ngeen ba tey ngeneen ragal meneen mer bay nii ma seen si xaaxa bay nii ma wuuteeg seen diggante yéen it tafaraxa yox ni laa kula min saati yi ca kanam waaw naataanakum leen topp nañu leen yéen góor ñi bu ñu leen toppee nag xas ngeen leen ñu topp leen comme li sëñ gay doon wax wala ngeen gàddaay leen ñu topp leen léegi nag fala tab ko bu leen sàkku yéen góor ñi nag sàbbirin yoonu xaste nag àlliñ sàlla yi na ci ñoom du da nga doon jéem loo mënul nangam ak nangam yooyu yëpp nag bu leen ci fekk nag na ngeen ni cell rek ina laa niki bur yàlla kaana nekk na aleen daju ka kabiran daju mag bu ngeen xeesu ndem ragal ngeen nag si xaaxa bay nii ma wuuteeg seen diggante diggante ñaari way dencante xab asoo yebal leen xakaman nit ku yaw te maandu waxul borom xam-xam de borom xam-xam nit dana am xam-xam te du mën a defare ndax nit nite gaadul sotti day yebal benn xakim na ngeen yebal xakaman ah waaju maandu min a ahlihi ca ñooñu góor ga wa akaman ak ku yow xakim xakim bokkul ak alim min ahliha ca ñoom jigéen bi xakim moo gën a yow xakim ngeen yow ku yow ku yow ku yow ngeen tànn benn xakim ca ñooñ góor ga tànn benn xakim ca ñooñ jigéen ca moo tax mu ne akaman min ahlihi wa akaman min ahliha ñu daje nag waxtaan nee na in yuy daan dem na mën a ñaari akim yooyu islaan yéwénal yow fekk dana dëppale laa bur yàlla bay numaa seen diggante nee na moos daañu fexe ba jubale leen ina laa ni ki bur yàlla kaana nekk na aliman di aji xam xabiran di aji solo la ngeen di jëf ak li ngeen di wax waaye boo fa yebalee ab dof da koy tas kon da koy tas danga koy yebal hakim mooy li wolof naan ko xereñ ku yew ku muus seeni wax bokkul ak waxi ulamaa yi ah fa tabaarakallaahu waaw wax bu doo jaamu leen wéetal leen laa yàlla wala tusriku bu leen bokkaale seen dara bil waaliday wa bu ngeen ko defee ba pare nag yàlla loolu mooy wàllam nee na bu leen bokkaaleeg man dara mbirum yàlla ngoog wa asinu na ngeen teg ci nag rafetal bil waaliday ni ngeen teg ci rafetal bil waaliday ni ci ñaari waajur insaanan ak rafetal waaye ñaari waajur it lu ñu foor foor duñu yàlla waaw da ngeen leen di rafetal waaye jaamu moom yàllaa ko moom wa bisil xurba ngeen rafetal itam seen bokk yi ngeen jegeel wala tàmmee ngeen rafetal jiriñ yi wal masaakiin ngeen rafetal miskin yi ngeen rafetalit wal jaari dëkkaale seen xurba dëkkaale bi nga xam ne da ngeen a jegeñ ci ak bokk wal jaari ab dëkkaale bi nga xam ne junu bi junu bi dafa laa sori fil jiwaar ci dëkkaale xëy na seen diggante mat na ay ay meetar yu xaw a kii daal wal jaari junnu bi junnu bi amul góor ak jigéen amul tasniya tasniya bi ak jamu ji ak moo am na si ci jigéenal gi ak ngóoral gi ñooyam lépp junnu bi nangu na ko rajulun junnu bi imraatun junnu bi imraataane junnu bi nisaaw junnu bi lépp la nangu dégg nga de nee na wal saay bi ak àndaale bi nga xam ne bil jën bi rafiq fi safari kii moom da ngeen a ànd tukki ànd ngeen tukki aw sanaatin wala ngeen bokk métier am nañu ni wal saay bi bil jën bi mooy jabar ak àndaale ja bil jën bi ci ak set ci ak wet wal jaari junnu bi wal saay bi bil jën bil bil bil junnu bi wal saay bi bil jën bi waaw wabni sabili ak doomu yoon it ñoom ñëpp da nga leen di rafetal kii tukki bàyyi alalam ca réewam rafetal ko wama ak la nga xam ne malakat moom na ko ay maanukum seeni ndey joor ca jaam ne donte saret boo yor la wala watiir boo yor wala façon moom ci sa kër wala mbaam lépp loo xam ne yaa ko moom dégg nga nga di ko liggéeyloo moom ko yilif ko nee na rafetal ko wa asino wama malakat ay maanukum bu doon xar moom moom dem ba di ko rend it rafetalal rend ga rafetalal rend ga te nanga ko nëbb paaka ba te nanga ko bëgg ba mën nga soog koo rey waaye bu ko rey ci mar te itam bul yeew am xar rendi moroom ma ci wetam mu di ko xool loolu lépp rafetal la ah wa maa malakat aymaanukum lépp loo xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy surga jabar doom jarbaat bu ne sa kër mbaam fas xar lépp jaaral ak ñoom fu rafet waaye bul jaar ak ñoom moo tax imaam Maalik nee na ku jëndum xar yeew ko xontoo ko reyoo ko jullit yi war nañoo dajaloo am nañu droit ci dem yeewi xar ma rendi ko waaw wala ñu jaay ko jox la njëgg wa malakat aymaanukum ina laa niki buur yàlla tey jii yàlla waxoon na ci nekk bu metti suñu benn dëkkaare bi ko bàyyi ko xajal
dañ ko war a yóbbu hôpital waaw sapeur pompier sapeur pompier man de sama xel nekk sax suñu téléphone
ñooñu de doxal nañu masala ñu wa malakat aymanukum ne la laa yuhibbu yàlla laa yuhibbu bëggul man koo xam ne kaana nekk na muxtaalan di rëylu faxooran ku di damuwaa kon yàlla bëggul ku rëylu ci kaw nit ñi di damu ci kaw nit ñi lazina gaa ña nga xam ne nag yëpp xaloona dañoo nay wa yaamuroona dañuy naye seen alal ñuy digle naa seen nit ñi dañoo nay ba noppi di digle nay dul bokkul ci nay waaw gis naa ko muy wax rek yow de waaye bëgg a jox dara bëgg a jox dara aha boo leen toppee de da nga mel na ñoom waaw yàqtuma nag ñuy nëbbu maa ci la nga xam ne ataam jox na leen suñu laaw bu yàlla min fadli ci ngëneelam wante danaa nu xaroo asaaban mbugal asaaban mbugal muy nen gu doya di leen kéefri na ñeel yéefar yi wala si na gaañ a nga xam ne nag ci la atif yén fi xoona dañuy dundale ñoo kontar yëpp kaloona am waaloom seeni alal ñoom itam rea annaas yi ñoom it taxul ñu jag te nga xam ne ngistal rek tax ñu di ko def wala yoom noona gëmuñu bi lay ci yàlla wala yoom ne ak bis ba axiri ba di mujj wa man koo xam ne yéen ne yéen ku ne nekk na seytaanu seytaane xari nan dib àndaale dib xarit lahoo ñeel ko fa saa bon na xari nan xarit xaritan bi nu yor moo bon wa ma sa ana lan alayhim di war ci ñoom ñooñu nga xam ne dañuy joxe ci ngistal lu loon doon war ci ñoom la wa amanoo doon te gëmoon nañu ñi nga xam ne dañoo gëmul yàlla doon te gëmoon nañu bi lay ci yàlla wala yoom ak bis bi axiri ba di mujj waan fa ko ñu joxe mi naa ci la nga xam ne da saxam wërsëgal na leen ko laahu buur yàlla bu ñu defoon loolu day wa kaana nekk na laahu buur yàlla aliman di aji xam biim ci ñoom yàlla xam na biim ci ñoom ñooñu le bañ a gëm yàlla inna laa ni ki buur yàlla laa yuslimu du tooñ misxaala saratin kenn tepp sara asxaru namlatin xorondoom sànq lañu ko gën a tuuti moom la ñuy tëkkaleeg sara waaw nga séddale ko ay cëri cëri cëri cër mooy sara lu tuuti bu dee ci wolof niñ ko war a tudd ci wolof mooy xa mooy xareeful lu dem ba kenn mënatu koo séddale kooku moo di sara nee na lu day noonu ndem nekk na def nga ko ci yiw yàlla dana la ko fay wayen tàkk ndem nekk na asanatan jiw yiw yu daay fa dana la ko dana la ko fulal ba ci benn fukk ba ci benn juróom ñaari téeméer wa yootu dana jox ajran ab yool asiman bu rëy min la dunu yool bu bàyyi ko ci moom fa kayfa xaalul kufaari naka mbirum yéefar yi isaa jéenaa ndem dikka nanu bi sayidin ci aji seede min kulli ummatin ci bépp xeet wa jéenaa nu dikke di ko ci yow yonent bi sayidin nga aji seede allah haawlaay ci yonent yii yow may sin keroog yowadu lay bëgg la si na gaa ña nga xam ne kafaroo weddi nañu yewadu lay mébét la si na ña nga xam ne kafaroo weddi woon nañu waasagoo ñu mooy woon rasoola yonent bi law tusawe doonte maasale woon na doonte maasale woon na al ardu suuf sa biim ci ñoom ñu bëgg rek suuf maasale leen ñu bañ a nekkati suuf ne mar marag rek ci seen kaw ñu bañ a amati loolu mos moo leen gënal nekk fii dund wala yàq tumoon a te mënuñoo nëbb laa bur yàlla addisan lu ñu mës a wax addisan lu ñu mës a jëf mënuñoo nëbb mënuñoo nëbb yàlla addisan lu ñu mës a jëf ndax loo mës a jëf yaa ngi ko defee ci kaw suuf te suuf si nee na mooy inspecteur bi lu ma sa xew ci sama kaw la xewe fekke naa ko jant bedd na lu ma sa xew maa ngi la tiim ñaari inspecteur yooyu nag doo jaar fenn efee lu ne seede la mbaxana mi nga sol seede la àndoon na naa yow ci benn ruq nga def ko nang mbub mi seede la tubéy ji seede la kenn ku nekk seede lam gis mbub mi seede ne soloon na ma dem jàkka ja soloon na ma dem ci njàng ma soloon na ma doon déglu waare ba soloon na ma dem fa ñuy firee alquran ah waaw moo tax nit bu dee inspecteur yi laaj bu ñu demee ci bàmmeel bi càngaay li da leen naan moom kat booy boo ngeen dem kër ga man tey dara xamaluma ko dara tey rek lañ ma boole maa nga woon ci bitig ba tey rek lañ ma booleel moom kon looloo tax kon waaw yi bëgg ñuy sànge nit yére yi ñu daan tuddee ci jumaa waa yére yi nga doon jaamoo yàlla rafet na nee na ak wala la nga xarmale woon rafet na waaw mu ne dem leen ca kër ga ca mbubb yooyu wékke ñu laaj mbubb ma mu ne ah man de soloon na ma dem juma soloon na may julli soloon na ma naafil soloon na may jàng alxuraan buy safaan baat mu wax loolu ñu laaj tubéy ji mu ne man de maa ko wëroon fa gën a suufe waaye musuma summi mukk mooy yàlla musuma koo seede ah boo defee safaan baat mu ne ah man de fekke naa ko waa yaktubuuna laa lépp yàlla wax na ko nee na wala yaktubuuna laa hadiisan mënuñoo nëbb yàlla lu ñu mës a def yaa lazina aamanu yéen ñi gëm yàlla am na laa taqrabu bu leen jegeñ salaata julli wa antum te yéen sukaare ngeen di way mandi waaw bi nga xamee ne laa yi jëkk ja wàcc na ñu ni kon nag nan def bu ñu jullee suba naan bala ñuy julli tusbaar mu rees bu ñu jullee tusbaar naan bala ñuy julli takkusaan mu rees waaye nan nekk ba julli soog a naan Abdurahman ibnu Awf nag invité leen woon booba jox leen sàngara sidnaal yooyu jiite julli ga booba araamagul mu jàng faate xul yaa kaafiroona ahbudu ma tahbudoona wa antum abidoona waaw góor gi man dina dégguñ ko yàlla nag ne bu leen jegee ci julli wa antum sukkaare ku mandi bu mu julli fa tayamamoo ah wa antum sukkaare lu tax ata taalamoo ataa jee tax mu asaf nuun nga newul taalamuuna ba ngeen xam maa taquluuna lu ngeen di wax ndég leen ba xam lu ngeen di wax wala junuban ataa taalamu maa taquluuna wala junuban du jaage ne ku yore janaba itam muy dugg jàkka ji ku yore janaba na sangu ah ilaa abiri sabi ndeleg ku fa jaar di dem musaafirin yoon wa dafa jaar yoon wa musaafirin yoon wa mu jaar fa rek dem ata taxtasilu yàlla nee na bala ngeen di dugg jàkka ji ak julli na ngeen sangu sangu leen janaba wayen kuntum dem nekk ngeen marda de way feebar nag aw ala safarin wala ngeen di wayaase amu leen ndox wala yeneen yu demee noonu aw jaa wala jóge wala dikk ahadun kenn minkum ci min a xaayiti bàyyi ko ci përtël ba xaayit mooy garab yu bari yu dajaloo wala aw xur nit ka di fa làqu ah di fa faj aajoom xam naa léegi bi duus amee nag mën naa tuddub duus minal xaayiti wala nga làqu nag minal xaayiti moo tax wolof naan xayit foofu la jóge foofoo ko jur dégg nga nee na aw laama sum wala ngeen sëy ak laal gi laalug sëy la nisaa ak jabar ya loolu lépp def ngeen ko falam tàjjidoo te amuleen nag maa ndox amuleen ndox mu ngeen sangoo amuleen ndox mu ngeen jàppee amuleen ndox mu ngeen defe dara léegi nag fa tayama moo tiim leen léegi nag suuf day wutu ndox tiim leen sayidan pakk tayiban bu teey pakk bu set pakk bu laab fadriboo bihi darbatayni famsaxoo masaaleen bi wujuhikum wa aydikum da ngeen di masaanat bi wujuhikum wa aydikum maa marfiqayni ànd ak ñaari marfiqeer seeni kanam ak seeni loxo loxo yi ngeen tëral ci suuf si moom ngeen ci masa wujuhukum wa aydikum inna laa niki bur yàlla kaana nekk na afoon di aji jàmmale xafooran di ko suturaal jaamam allam tara ndax da nga gisul idal la si ne ñàkk ndox ko waral ku am ndox moom naka pexe loolu tiim rek moo fi sës naar ba kay dafa dem ca dëkk ba ne ana soxla ndox ne ana ndox ñu ne ko dëkk bi kat amul ndox mu ne dëkk ñàkk ndox dëkk caaxaan daal di tuxu dem ci beneen dëkk jàpp ba nag mu foofu mu am na ndox waaye mu laaj jàkk ñu ne fii amul jàkk mu ne dëkk amul jàkk dëkk saay saay oto joxes na leen nasiban at kër mi ne kitaab bi ci téere bi muy yahut yestaroona ñuy jënd dalaalata réer ga ca njub ga wa yuriduna ñuy nam an taddiloo bu ñu réeréer sàbbi la yoon wa wallaahu yàlla ahlamu xammee na bi ahdayikum ci seeni noon afaalu taflil dugg ci yàlla wa kafa doy na waleen kuy wattu bi laay ci yàlla wa kafa doy na nasiran kuy dimbalee bi laay ci yàlla dégg nga mi ne la si ne tukkee na ca gaa ñi nga xam ni xaadoo ay yëwoot lañu xaw moon aw nit yoo xam ni yuaarifoona ña ngay jàngal kàllima wax ja ca tawreet ci ci ci tagg wa ñu tagg yonent bi ñu soppi ko def ko neneen an mawaadi yi jële ko ci béréb ba def ko neneen xotti ko wala ñu for ko wa yaqooloona ñuy wax ñeel yonent bi bu leen yonent bi digalee ñu ne sàmmihi naa xawlaka waa say naa amra dégg nañu say wax noo ko gën a dégg waaye waa say naa mooy nañu amra ka sa ndigal daa di koy teg wasmax xayra musmahin baat bi nag wasmax xayra musmahin ci wàllu bayaan dafay yenu ñaari maanaa ñaari maanaa la yenu wasmax mooy déggal déggal li ñuy wax kat lu baax la doo dégg loola naqari wasma yonent bi déglu ñu ne ko xayra xayra musmain yàlla boo dégg yàlla na nga dee xayra musmain mooy ñaanal nit ak sëx wala nga ñaanal ko dee te kat dañ ko jëkk ni déggal doo dégg loola naqari déggal li gaa ñuy wax déggal mu ne kott di déglu ñu ne ko xayra musmain yàlla boo dégg aw xas la waaw waaw aw xas la ñoom yowoot yi ci loxatul abraniya moo di raayina déggal yàlla boo dégg mi ngi mel ne yaayoo la si nusida alay sikru ci saaru ijri e yow mi nga xam ne dañoo wàccee ci waar gi fekk yonent bi ci mbooloo mi mu ne gees ne ko innaka la majnun dëgg dëgg yow dox piir nga xam nga loolu bu doon ci wolof daal dañ naan mooy naxe ci wax nax nit ci wax ba wax ko li nga ko bëgg a wax gisoo ñuy publicité ci rajo bi bu ñu amee lu ñuy bëgg a wax dañuy andi lu neex loo xam ne dëggoon nag bakkan benn woykat buy woy ba ñuy déglu nag ñu daal di indi nag li ñu bëgg a wax mooy lii suuf lu ci gën ñu ciy tiim ah dëgg de ku ciy tiim dangaa amul suuf du dëgg boo amee suuf kay nga tiim ci suuf doj moom mooy amuñu suuf rek mu remplacer suuf waaye bu nu amee suuf ci suuf la ñu tiim wasma xayra musmain waaw déggal yàlla boo dégg teg te yàlla na nga dee wa yaqooloo nag ñu naan yonente bi raaxina jubluwuñ ci bitti baat bi saayaru baat bi sàmm nu jubluwuñu loolu liñ jublu mooy yow sunu dof ab dof rek nga yàlla nee na ngeen saaru baqara laa taqulu raahina wa qulu unsurna bu leen waxati yonent bi raahina ñoom ñu ngi jublu mi na raaw na ci yow sun wala um akub ndof yee yow sunu dof bi ah bu ñu koy wax nag ña ngay jàngal lay yan raahina waaw ay jàngal nag daal si ne dem ci seeni lamiñ nag waxtaanan ak di jàng fi diini ci diini ji yàlla nee na wala àndoom donte na ko ñoom yahood yi xaaloo wax nañu ne sàmmi naa dégg nañu waa tax naa topp nañu atax naa topp waa asa atax naa remplacé waa asay naa bañ ne sàmmi naa waa asay naa xanaa ñu ni woon sàmmi naa dégg nañu waa tax naa topp nañu donte ñoom la xaaloo dañoo waxoon ni wasmax déggal yem fa kepp te bañ cee teg xayran musmahin buñ ne woon wasmax faqat yem fa dong nag te bañ caa teg xayran musmahin ñu ni woon surna te bañ ne raahina kon day la kaana mu nekk moo xayran diggan lahum ñeel leen waa qawama tey gën a sax walakin lu fi ne la anam rëbb na leen laaw bur yàlla rëbbum yàlla nag mooy dalay soril yërmandeem bi kufrin ci seen kéefër falaa yoom nee na gëmuñu ilaa xalilan nderek lu néew muy abdullah ibnu salaam yaay la si na e yaay la si na ñi nga xam ni yaay la si na ootul kitaaba e ñi nga xam ni ootoo joxes na leen alkitaaba téere ba aminu gëm leen dinaa ci la nga xam ne nasal naa wàccee nañ ko ci alquran musaddiqan muy aji dëggal lima moom ñeel la ànd ak ñoom moo doon tawreet def leen ko min qabli an natmisa la jëkk bala nuy nar mar marmaral bala nuy far wujjoohan ay kanam far bët ci kanam far bakkan far ay yéen kanam bu amul bakkan amuti bët amuti yéen xanaa ne tàllaas mel ne alluwa du rafet yàlla nee na noonu laa leen di def fa naru daa ma delloo kanam ga ba ma ko defee ba pare duma fa yem dama koy wëlbati allah add baaraay ca gannaaw fa dox ga ne woon kanam nga féete fa noonu laa leen di def noonu laa leen di def fa naru daa la add baari haa aw na lan wala nu sori leen yërmande yàlla mooy nu man suuxal leen mooy rëbb moom mi mooy aw na lanum kama laana nan rëbbe woon asaaba sabti ñi ñu tere woon bu leen rëbbi gaaw bu leen napp gaaw ñu bañ wa kaana nekk na amrulaay mbirum yàlla maf oolan di li ñuy jëf ah nee na ina laa ni ki bur yàlla laa yaxfiru di jéggal an israka ñu bokkaaleeg moom israak sirku yàlla du ko jéggale wa yaxfiru dana jéggale nag dana baale maa doona saalika lu dul bokkaale ci ay bakkaar lu dul bokkaale dana ko jéggale liman ñeel ka nga xam ni yesaawu neex na ko moom lañ jëkkoon a wax wax siyu ba muy tuub ah yonent bi ne ko tuubal boo tuubee da nga dem àjjana mu ni yàlla kat li ma jaaxal yonent bi ne ko yàlla nee na inna laa laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfir maa doona saalika te man damaa bokkaale ak yàlla mu ni ko nag wa yaxfiru maa doona saalika nag lu dul bokkaale yàlla da koy jéggale liman mu ne ko nag liman yasaawu ji mooma ci jaaxal masi abi daxaw ma bokk naa ci ña ko neexam déet yàlla wax ca saaru sumur nag ni ina laa yaxfiru sunuba jamian yàlla day jéggale bàkkaar ya lépp waaw mu soog a tuub yusuf ku bokkaale na bilaay ci yàlla wa qad tara fokk na isman bàkkaar asiman bu rëy alam tara ndax da ngaa gisul ila lazina jëm ca gaañ nga xam ne yu sakkoona ña ngay sellal anfusahum maa baax maa baax sa baaya baax sa maama baax ña ngay sellal anfusahum seen bopp muy yëhoot ndax nu abnaaw laay waaxe ba nun may doomi yàlla nooy ay soppeem allahu bur yàlla nee na bal ba ca cëkk jàpp dëgg laaw yàlla yu sakki dana sellal man saa ku ko neex ci gëm yàlla wala islam mën a deesul tooñ leen fattiran lu day na nderes tàndarma su weex soo si muur toj toj bi ci saal bi nee na lu day noonu kenn du leen ko tooñ unsur seetal kay fa yaftaroona ni ñuy kàccee ni ñuy fortoo kasiba seen wat ala laay di ko teg yàlla wa kafa doy na isman bàkkaar mu binoon bu di bir bii ci fortu fen di ko teg ci diine yàlla ji alam tara ndax dangaa gisul ilal la si na jëm ca gaaña nga xam ne ootoo joxe na leen nasiban ak cër mineen kitaab bi ca tawreet yoomi noonu ñuy gëm fayewuñu yàlla lu dul ña ngee gëm bil jipti xerab buñ naan jipti wa taaxooti xeram buñ naan taaxoot ñaari xeram yu rëy lañu wante waa Quraysh na leen moomoon wa yaquluna ñuy wax li la si na ñeew gaaña nga xam ne ña ngay laaj gaaña nga xam ne kafaroo weddi nañu mooy Abu Sufyaan ak mbooloom ma ñu di ko laaj boobu Abu Sufyaan gëmagul yàlla ñu naan ko axaawlaay ndax ñii wa nasalu am muhammad waqad xaalafa diinu abaayihi ñu naan ko axaawlaay ndax ñii a ay lu mu ci jublu aawlaay ndax yéen axadee yéen a gën a jub mi ne la si na ci gaaña nga xam ne amanoo gëm nañu sàbbiran aw yoon mu ne leen yéen yéen a leen gën a jub nax na leen ulayka ñooñu gaay la si na mooy ña nga xam ne laanam rëbb na leen laaw bur yàlla wala goo xam ne yàlla rëbb na ko laaw bur yàlla falan tàggida du fekk nasiran aw yoon nasiran ndimbal yoonu ndimbal loo di ñeel ko bal lawum ñeel na leen rek nasibun ab cër am lawum kon am ji bal la tooge am bàyyil sikk jàpp dëgg lawum ñeel na leen nasibun ab cër bu rëyul minal mulki bariwul dara ci nguur gi laysa lawum seyun minhu am lahum am dafa leen a ñeel nasibun ab cër minal mulk ci nguur gi yàllaay laaj ba xam ci mi ngi ci ulaayka lazina laanahumullahu wa man yalani falan tajida lahu nasiran am lahum yàlla ne am dafa leen a ñeel nasibun ab cër minal mulk ci nguur gi laysa lahum shay'un minhu dara lañ ci amul walaw kaana doonte nekkoon na kon du ñu mel noonu ñu mel fa isan kon bu ñu amoon dara ci nguur gi laa yowtoona du ñu maye du ñu may du ñu jox naasa nit ne naqiran say an kaaba qadru naqrati comme toj toju toj toj boobu nekk ci tàndarma ci gannaaw saal bi du ñu may nit lu tolloog loolu doy na ci tuuti daal fattil ne ci tàndarma naqiir ne ci tàndarma ak li ci des xitmiir xitmiir ne ci tàndarma fattil ne ci naqir ne ci yett yëpp bu ñu bokkee nekk ci tàndarma doy na ci tuuti nañu ah doy na ci ak nuñ ko mën a misaale rek boo nee tuuti rek wàcc na naqir nag moo ci gën a tuuti deru weex waaw nga xam day metti bañ waaw moo ci gën a gàtt moo ci gën a tuuti. waaw. waaw.
naqiir.
am na lu nekk ci.
naqiir nee na mooy.
lu nekk ci biir.
naqiir mooy ne ci gannaaw sa.
wala naan sa gàttaay dina naqar.
ah naqiir naqiir ban mooy.
naqir waaw.
point bi. naqiir mooy point bi.
waaw.
waaw mooy gas gas.
waaw nee na lu mu ci mën a doon daal lu ci nekk lu tuuti la. naqiran. am ma cër sëkk jàpp dëgg yaa su doon na dañuy añaan naasa yonte yàlla Muhammad naasa boobule yonte yàlla Muhammad la ci jublu allah maa ci la nga xam ne ataabu jox na leen ko moom ak saabaam yi laaw yàlla min fadli ci ngëneelam muy ak yonent taxadaate naa joxoon nañu ala ibrahima ñoom ibrahima maamu yonent bi ka Muusa ak Daawuda ak Suleymaan alkitaaba téere ba war ikmata ak yonent waate naam joxoon nam leen Suleymaan ak ñi mu àndaloon ak Daawuda baayam mulkan nguur asiman lu rëy Daawuda amoon na quatre-vingt-dix-neuf ci ay jabar juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent Suleymaan amoon na junniy jabar ci diggante gor ak jaam waaw booba li araamal luwaay bi ñëw ci yonent bi ñëwul ci ñoom luwaay bi yegg seegul luwaa moom bu ñëwagul la ñuy def bokkul ak la luwaa ba tere minum tukkee na ci ñoom nag yowoot man koo xam ne sadda day fegu xan hu bàyyi fa yoonu yàlla bañ a gëm wakka fa doy na sayran tàkkaa kon bi jaanama ci jaanama dañ koy xam ba ci jaanama ina la si nit gaa ñaa xam ne kafaroo weddi nañ beet naa suñuy kéemaan suñu alxuraan safa muslim yàlla nee na daan leen tàbbal naaram sawara kullama nallijat bépp boo xamante ne lakk na ba jeex seen deri yaram nguloo doon seen deri yaram lakk na ba jeex baddal naahum nu beesal ko nu remplacé julloo doon ay der xeerahaa yu bees yeneen ba mu mën a lakk loolu nag moo waral dee ndax mbugalu alaaxira jëmmi àdduna attanu ko faaw nga dee nag ñu sansi jëmm ji julloo doon xayraan buy mbugal bu metti ga jëmm ji du metti ci moom parce que attanu ko buy lu neex du ko attan du neex ci moom du neex faaw nga dee nag lahum baddalnaahum julloodan xayrahaa lee sooxoo ngir ñu mos asaaba mbugal ga ina laa ne fi bur yàlla kaana nekk na asisan daaji not ak kéeman daaji atte lay dëgg wala si na gaañu nga xam ne amano gëm nañu nag waa mi la ñu jëfee salaate farata ak sunna ñoom sann duxiloon daan leen tàbbal jannaatin ajjana la jëri dang way daw la naarum ndox ma min taxtaa ca suufi étage ya xaalidina ñuy sax fiaa ca kër ya abadan li tax ñii dem ajjana mu naan xaalidina ñii dem sawara ñu naan xaalidina ikma bi tax mooy ñii dem ajjana dañoo amoon yéene innama laxmaalu bi niyaati dañoo amoon yéene di jaamu yàlla rek ba yowmal xiyaam feeg deewuñu dañoo am yéene di jaamu yàlla rek feeg deewuñu di jaamu yàlla ñii dem sawara dañoo am fa yéene di mooy yàlla rek feeg deewuñu di mooy yàlla kon nag xaalidina ikma booboo ko waral fiha abadan faw imal li dunyaaka ka annaka tayisu abadan wax mal li axiratika ka annaka tamutu xaddan lawum fiha ci àjjana aswaajun ay soxna way lëkkoo mutaaratun yu laat ci mbërëg duñu gis mbërëg wanu doxilum nu tàbbal leen zilan ker salilan gu keru ker gu keru goo xam ne gi jant munu koo joxu naaj ina laa ni ki buur yàlla yaamurukum digal na leen an toodoo ngeen joxe amaanaati wëllëre ya uquuq ya àq ya ilaa ahliha ca ñoñ ña nga xam ne ñoo ko war a yor li ko taxoon a wàcc ba yonent bi ñëwee makka ba mu dellu see makka ne nañ ko ubbil kaaba gi fekk kaaba gi mi ngi Ousmane ibnu Talaata mu daal di yëg ca kaw di tam xam lu lank ñu laaj ko cay bi ji mu lank si naa lu ñëw sangu ko rek ne foqet gaa cay bi ji ne ko paŋet nangu dem wubbi yonent bi dugg nag génn julli ñaari rakka woo si naa li ba mu ñëw mu ne ko joxeel caabi ji ndax yàlla nee na ina laa yaamurukum an tuudoo lamaanaati ila ahliha laaya wàcc na joxal Ousmane ibnu Talaata caabi ji delloo ko mu jox ko caabi ji mu bañ gedd ko yonent bi ne ko waaye yow yàlla moo wax ne nañ la jox caabi ji mu ne alxuraan dafa wàcc ci sama mbir mu ne ko waaw mu ne ko man mii maa tax yàlla wàccee laaya ji mu ne ko waaw mu ne kon nag ashhadu an laa ilaaha illallah damay jébbul daal di jébbulu ñu daal di fekke woo caay bi ji yonente bi ne boo kenn jëleeti ci ñoom nañ ko yor faw Ousmane ibn Tala wa isa xakamtum dem atta ngeen bay na naa ci diggante nit ñi an taxakamoo yàlla digal na leen yaamurukum yàlla digal na leen bu ngeen dee attewu xam nga lu leen yàlla digala digal na leen an taxakamoo ngeen attante bil adri ci dut ina laa nekk yàlla neex ma baax na maa la nga xam ne yooyu sukkum waara na leen ko bii ci lam leen waare moom yàlla moo ko neex maa yee ca bàqara ñooyam ina laa nekk buur yàlla kaana nekk na sàmmiyaan di aji dégg ba siran di aji gis yàlla si naa mënoo yéen ñi gëm ni yàlla am na ak teewoo topp leen laa yàlla waa teewoo ngeen topp rasula yonent bi bu ngeen toppee yàlla ci farataan topp yonent bi dëggal yonent bi ci sunnaan topp ko wuli lamri ak boroomi ndigal yi nag mooy yonent bi ak saaba yi ñu koy doonante nag ba léegi uli lamri mooy jullit ñi min kum tukkee ci yéen ba léegi ay ima yi imaam yi ñoo di uli lamri ngeen topp leen nag min kum ñu bokk ci yéen suñ tànnaa santum dem xëccoo ngeen fi sëyeen ci dara werante ngeen fi sëyeen ci dara nii léegi atte bi ñii ne léegi atte bi faraddohu dellu leen delloo leen ko delloo leen atte ba ilallaahi ci téere yàlla bi yóbbu leen ko ci alxuraan bu leen ko yóbboo ci alxuraan lu mu ca wax ngeen ni lii la alxuraan wax wa rasuuli ngeen yóbbu ko ca yonante bi muddatu ayaati yi diiru dundam ci ba muy dund ngeen yóbbu ko ca yonante bi gannaaw bu fi jógee nag illaa sunnatihi yonent bi nag ki ko remplacé mooy sunnaam ku yor sunna si rek yaa ko remplacé kuy jëfandikoo sunna rek ci ñu remplacé yonent nga waaw yaa sunnatihi mhm moo tax si daaj maay ne in maata seexukum moom maa maata sartukum yonent bi itam bu dee itam sunnaam a ngi fi mhm in kuntum dem nekk ngeen toomi noona diggam bilaay ci yàlla wala yow ak bis ba ngeen gëm bis baaxee ba di mujj saalika delloo googu ngeen koy delloo ilaa kitaabilaay wa rasuli xayrun moo gën ci loolu ngeen werante moo gën wa ahsan te moo gën a rafet taxawilan leneen lu ngeen mën a indi taxawilan lu ngeen mën a taawil yóbbu ko ci téere yàlla bi muy alxuraan yóbbu ko ci yonent bi muy dund bu fi jógee ngeen ànd ko ci sunnaam ngeen atte ko ci bu fi nekk bu fi nekk bu bu ngeen ko yóbbu boobu ngeen ànd ko ci ulil lëmri moo gën a rafet leneen lu ngeen mën a taawil nag lu ngeen mën a taawil daal lee ko gën a rafet ne yowoot dafa joteeg benn naafiq moo waral lii wàcc sababu nu soolam yowat bi joteeg naafiq bi yowat bi ne ko nan dem ci yonent bi mu atten naafiq bi ne ko nan dem ci kaab ibnu asraf mu atten moom lañ tudde woon caaxoot man yonent doyuma loolu la naafiq wax yowat bi yi ne ko maytam kaab ibnu asraf doyuma nañ dem ci yonent bi mu atten xanaa ba yàgg mu nangu ñu dem ci yonente bi yonente bi atte yeyal yahood bi yahood bi yeye naafiq bi ñu génn mu ne ko atte bi doyuma nan dem ci omar ibnul xattaab yahood bi ne ko bu la atte bi doy nan dem ci omar ibnul xattaab mu ne ko omar de am na lu doxoon suñu diggante mu ne ko waaw waaye nan dem rek moom dëgg lay atte ñu dikk ci omar nan lu ngeen di wut yahood bi ne ko kii de danoo jote dem nañ ci yonent bi mu attenu e mu yeyal ma ma yey ko mu ni yonent doyu ko nañ dem ci Omar ibnul Xattaab mu attenu sidna Omar ni naafiq bi ahaakasa ndax lii mu wax ni la mu ni ko waaw ni la kay mu daal dugg ci néeg bi rek daal di fab jaasi ji rek na dox ko gaj ko rek ne ko nii laay attee ku atte ku yonent bi atte mu bañ mu ne ko nii laay attee ku weddi atta yonent bi wala rabi bi mun naa sax atta barada ba mu dee sedd guy wa xaala xaakasa aqdi bayna man lam yarda bi xadda illahi wa xadda i rasulihi laay ji wàcc wa qaala jibril inna omar faraqa bayna al xaqi wal batili fa summiya al faruq keroog lañ ko tudde al faruq kii teqalee dëgg ak fen keroog lañ ko décoré tudde ko faruq allantara ndax dagaa gisul ilal la si na jëm ca gaañ nga xam ne sàmmona dañuy caaxaan di mbóorant annahum naka ñoom aminoo gëm nañu bi maa ci la nga xam ne unsira wàccee nañ ko ileeka ci yow te waxuñu dëgg wa maa unsira ak la ñu wàccee min xablika ci la la jëkk muy tawreet ak din jiit yuri doona ñuy nam liñ doon wax mi ngi nii moo tax laay ji wàcc yuri doona ñuy nam an yattaaka moom ñi atteew ila taaxooti ci kaab ibnu asraf waxut umiroo digalees na leen an yakfuroo ñu weddi bii ci kaab ibnu asraf kaab ibnu asraf du wax dëgg wa yuridu namm na seytaanu seytaane ci boppam an yu di lawum mu réeral leen dalaalan ak réer bahidan gu sore way saaxiran dem nees na lawum ñeel leen taalaw kaay leen ilaa maa ci la nga xam ne un se la wàccee naka laa bur yàlla fil quraan ci alquran wa ila rasuli ak li yonent bi wàccee ci atte ñu bañ raxayta nga gis mu naafiqi na naafiqe yesu doon a ñuy fegu an ka wàcc la fi yow yonent ilaa xayri ka bëgg a dem ca kaab il musraf su doo dem ak fegu fa kayfa yes noonu naka ñuy defe loolu isa asabathum fa kayfa yes noonu ñoom nañuy defe loolu ñooñu ba tey mooy ñi nga xam ni isa asabathum ndeb jot na leen musibatun musiba dinaa ci la nga xam ne musiba